Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi am mbégte bu baax a baax a baax li koy sabab itam mooy li nga xamante ne tey fas nañ ko jóg def si ko rawatina suñ jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy émission bi nga xam ne moo dépp tuddee xam sa démb ñu jóg tey seet si ndaanaan seet si kàngam seet si itam ku yàlla may macha allah bi di soxna Mariama si mu Sëriñ Babacar bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam tam lépp tam jëm ci wàllu xam-xam jëm tam ci wàllu cosaan waaye tam jëm ci wàllu lasraar soxna Mariama si mu Sëriñ Babacar bisimilahi rahmaani rahim ange billah mina sheytaani rajim waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sang bi ñu ngi lay màggal ñu lay tatagal di eh, nuyu kulli koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu ndax nee naa wax dëgg fa ne yàlla lépp lu ñu fi waxtaane def si li ma yaakaar mm-hmm. njariñu kase lañ fi fas yéene waxtaane ndax yàgg nañoo dox ci njariñ mm-hmm. ndax nee naa sang bi eh, ki lay kiy wax kiy déglooy mboqam te nit ñi dañoo jaaxle ba xamatuñ ñu jëm mm-hmm. kon ñu ngi nuyu kulli koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu te yaa ngi bàyyi xel di nuyu këru kër diine yi ëttu kër diine yi di nuyu waa kër maam borom Touba di nuyu waa kër Seexal Xaddim yëpp ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. te di leen di tatagal di nuyu waa Tiwaawan di nuyu waa Njaasaan di nuyu kullikum mm-hmm. ndax bu ñu limee rek dañuy daal di juum ñuy nuyu ñëpp di màggal ñëpp di tatagal ñëpp naan baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu soxna Mariama Si mu sëriñ Babacar nuyoo bi am na solo macha allah yal na yàlla sama borom defal ñu ci dégg defal a waxtaanee itam yal na yàlla seetal xool ci wàllu latru surtout mm-hmm. euh, latru dañ ci carte mariage dañuy xool ci suuf ndox mm-hmm. façon yi ñu seete daal bari na mayu yàlla la nag mm-hmm. du ñun day lu ñu am yàlla lañ koy sante ndax moom moo ñu may ndax bu ñu amee nag sañ-sañu toog di faj doon jigéen toog di faj mbiru kàttanu yàlla ak doolee yàlla rek moom la ñuy demee ci barki Seydina Muhammad mu doon lu am solo macha allah ndokk bi nga jëlee lépp tam daal di koy delloowaat suñu borom moom mi nga xam ne moom moo am sañ mën tey def te lu fi waay di tiitaru rek moo la ko jox yaakaar naa ni kon alhamdulilah rek lañ ci mën a wax mais ñu ngi soxna Mariama seet gi xaarul sax nit ki ñëw biir këram di ko fay pour mu seetal ngi gis bu guddee yaa ngi ci TikTok bi di seetal nit ñi en gratuite ci lu tax lu tam fi mu ne yërëm jaam ñi la wala wala wane sa bopp la wala la tam parce que bëgg naa xam lu waral loolu parce que ñi ma gis ñu koy def ñëpp ñu ngi waaye dañuy fayeeku waaw sant ndax nee naa dañuy doolee sant ndax ki ñu àndal mhm. di la sëñ Babacar Si mhm. mooy suñu wasila te bu ñu àndee moom taal ndax nee naa wutuñu xaalis mhm. di seetal gaa yi euh, te it ndax nam muñu xaalis waruñu xaalis ndax def ñoo fekk ñu am suñuy teraanga seet bi ñëw wàlli si waan si ñun ñëw gane si ñu ñu ak rab ànd ak jinne ànd ak ay tuur te loolu boo àndee ak moom macha allah warootu dara ndax liñ naan namuma dara kenn du ko wax dañ la koy wax waaye ñun namuñu daray seet ba war mën a seetal nañu gratuit ndax dafa am ñoo xam ne dañuy woo ne dañoo bëgg a seetlu te yoruñu xaalis te ñooñ dañ leen war di defal gratuit dañuy war di waxtaan ak ñoom. Euh, te ñu voyance kese voyance plus confidence. na am na ñoo xam ne ñu ngi ba Europe ñu ngi ba Asie ñu ngi ba fu ne partout dans le monde. Mhm. dañuy jaaxle saala te gëmuñu woon seet. Mhm. am na ñoo daa mel ni yaa ngi lancé défi ñenn ñi nag fi mu toll nii parce que fi mu ne wax dëgg yàlla euh, li ngay wax ni moom macha allah parce que seet ci différente anam bu ci ne wax dëgg yàlla néew ma ñu ñëpp duñ ko def de waaye ñi ma gis ñu koy def tam ñu néew la ñu ñu mën a wàññi donte ku ci ne di nga am sa benn wala ñaar xool peeru mariage xawtil gerte sondeel ndox laturu bi ngay wax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne man xam naa ko ci soxna Mariama mu koy seete loolu tax may évoqué question bii nii parce que coowal seet dafa bëri waaye nag defe naa seetkat moom giskat bi da est-ce que du ko ëpp njëriñ. xanaa gisoo TikTok bi. Mm-hmm. nee naa ñoo fu njëkk a toog def seet. Mm-hmm. moo tax ñëpp a ngi lëmbe daw ci internet bi ñun waruñu loolu taal xam nga la la ñu wër waruñu bër bës la ñuy wër. <laughs> waaw ndax nee naa nee naa demuñu te amuñu téeméeri at te dem nañ téeméeri réew. Mm-hmm. kon ñun xam nga ni seet. dañuy comme maanaam don de Dieu mhm. miracle de Dieu yàlla defal nañ yëpp man nit bu wootee ci TikTok bi soxlawul sax may jël dara di koy wax mhm. baatu nit laay seetee mhm. kon loolu yëpp mbirum yàlla suñu boroom la euh, kon taala na gaa yi dem jàngiwaat xam-xam ndax xam-xam mën nga koo jàngi mën nga koo resté bu fekkente ne da nga juddu judduwaale woo ak xam-xam doon woo xam-xam demal nga jàngiwaat seet nga wax nit ki loo xamante ne bu génnee sarax def gis nee naa def gis man dama lay digal boo ko defee baax na boo ko deful tàmpi waaye boo ko defee gis li ma la wax amul wàllaali kon yàlla defal nañu ba pare yàlla defal nañu lépp taala su ma paree yow sama ñetti sondeel moom ñu yéggali ko ndax ñetti sondeel ndogalu ñetti sondeel ñetti saabu la ñetti saabu ya dinañ ko lijjanti dossier am dinañ ko lijjanti léegi incha allahu a ndax dama bëgg seet dama bëgg a yëngal seet dama bëgg a dekkal mbirum seet wan nit ñi façon seet bu ne am na wallaahi dugub sax dañ si seet taala ma sama dërëm dërëm yi ma seet incha allahu rabbi taala <laughs> macha allah wax dëgg yàlla dama ko fàtte te wax dëgg yàlla su ma ko fàtte loolu naa la ko indi ndax ma nga ma teg ci béréb fi mu ne wax dëgg yàlla ndax keroog la ma woo ne ma damaa bëgg ngeen ñëw tournel ma émission waaye dama bëgg dërëm dërëm ngay naa leen may dërëm dërëm ma seet ci en direct loolu dañ koy taggaat non loolu dañ koy parce que tey temps bi xat nañu te mëntoon a ñàkk moo tax ñu ne nañ njëkk ñëw rek daal di def si nii waaye bii di ñëw incha allah rabi taala dañuy indaale dërëm dërëm yi toog nga wan leen ko en direct su ko defee ma gisaat tam soxna Mariama jigéen ñëpp ay xaritam lañ donte góor ñi ay xaritam lañ secret de femme mm-hmm. moo tax jigéen ñu topp la wala lan moo tax jigéen ñu topp la ndax dégg naa la tam ngay wax ni voyance plus confidence te confidence bu ñu koy wax mooy ki nga xamante ni danga ko war a wax sa mbiru biir mbiru biir du ku nekk lañ ko war a jóg wax te ku nekk koy du ku nekk koy waxi tamit kon jigéen ñi la topp mhm. confidence bee tax ñu topp la wala secret de famille moo tax ñu topp la. waaw confiance lañ jiital ba pare. Mhm. secret de femme door a ñëw. ndeysaan. Mhm, solution <laughs> maa yaay jaboot yaay ñëpp. Mhm. kon nag bokk déggandoo mbokk internet yi dégg ngeen soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar ci biir li nga xamante ni mooy xam sa démb nee solution la soxla moom lay indi ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir doomu aadama yi rawatina jigéen ñi nga xamante ni dañuy nekk ak nit. ba dara dul dara nit jamono dem ba nit ka doon tey la mu doon wala mu doon dara mool bëti ko daanaka bëgg a tas yaakaaram wala bëgg ko war kon bokk na ci xeex bu mu leen di xeexle moom nag xam naa ni gannaaw bi mu doon a jigéen dafa doon ku féministe parce que moo tax mu def loolu muy def waaye ba tey soxna nga wax ko léegi tolluwaayu jamono dund bu cher bi nit ñi sonn nañu mhm. sant yàlla ndax nee naa nit ñi buñ toogee bay waxaale seet nga xam ne dëkk bi toj na déedéet déedéet dafa ndànk dégguma la dégguma nga ni waxaale lan waxaale seet danga naan ni temps laay seetaan ndeysaan mu lay jooytu nga xam ne problème am na sociale danga ciy dox mm-hmm. <laughs> te booy dox ci social defe naa ka am dërëm ka am junni ka am fukki junni ñëpp ñëpp nga yemale mm-hmm. ndax yaa woote social te man maay social <laughs> macha allah dëkk bi metti na ndax li tax dëkk bi metti yaa ngi naan dund avant tout dëkkuwaay moo gën a seer dund mhm. après ñu jàll ci dund dund jàll ci courant dëkk bi metti na mhm. papa Macky woo nañ ko fu ne wuyuwul daa mel déggul gars yi te dama bëgg mu dégg bu baax a baax troisième mandat mhm. <laughs> bu ko bu ko bu ko bu ko cherché déedéet bu mu cherché troisième mandat maa fi toogoon ne mooy jël euh, deuxième mandat troisième waay bu mu laal Hmm. bul laal bul jege fi mu toll ni pour l'instant affaire la hmm. mhm. réew mi nit ñi fi mu toll ni ay godron la ñuy añee di koy reeree tali bi foo tourné godron hmm. kooku walaa ya troisième mandat mooy dëkk bu yëngu seex bi ah. moo tax bu wax troisième mandat na ko teg ci suuf 2023 ñëw gu mais bu na ko teg ci suuf bu fekkee bëgg na jàmm kon daal bu bëggee jàmm moom bu mu wax gu mu waxi troisième mandat. kon ci lan la war a wax fi ni ci jamono bii ñu toll. terminé bu seer diwlin bu seer courant bu seer na wax ci loolu ba pare. Mhm. ak ministère am bii mu war ko changé. <laughs> li mu def baaxul. Mhm. <laughs> daa gëmm daa gëlëm dañ ko gëlëmal <laughs> gars yi dañoo mystique. Mhm. dañoo mystique. nee naa fi mu toll nii gëlëmal nañ ko ba mu fal ay ministre yoo xamante ne dëkk baa ngi toj ñëpp a ngi jooy ak peccum ginnaaw bi ministre am yi na leen changé kenn baaxu ci. ah kon monsieur le président dégg nga loolu soxna Mariama Sy mu sëriñ Babacar wax dëgg yàlla surtout suñ Babacar bee toog moo wax nii nee na sa ministre yi nga fal bees soppi leen ndax bokk na ci ñi nga xam ne fi ni moom jëmale wuñ sa liggéey kanam te jëmale wuñu tamit fi ne réew mi kanam kon soppi leen delloo ginnaaw dañ koo um ok dañoo um président de la république palais bi fi ñu toll dafa lëndëm crise ak mystique ak baatin loolu ca kanam dañ ciy ñëwaat. Mhm. Uh-huh. ndax am na at moo xam ne laata mooy falu waxoon nga ñu ci dara bi mu falo itam ñuy wax. ci boppam gisatul dara moom lañ njëkk a gëlëmal. ci président de république nelaw na daanu na bu yàgg. <laughs> tubaarkàlla soxna Mariama si ñoo ko bokk déggandoo du samay wax waxama wax am na fu mu ko tegi tamit ndax nee naa toogoon naa ak moom li ñuy wax booba deux mille deux mille deux mille dix dix huit la woon. ñu wax booba ñu ngi ci beneen télé boo xam ne ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu mbooleem nañ fa nekk ndooloon waaye ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom suñu mbokk moom suñu rakk jooju nga xam ne moo ko moomoon te génn àdduna mu nekkoon seen flash point com wax dëgg yàlla fa la ko waxee woon image boobu li ñuy wax ku dugg télé boobu di nga ko fa fekk mu waxoon wax joo xamante ni ba mu ko waxee ñi waxaat ci ginnaawam ñëpp dañoo daanu moom la fàttaliwaat léegi ren itam ñu toogaat fii di waajal 2023 jëm 2024 mu ne Macky Sall jarut muy waxi troisième mandat na ko teg ci suuf kon nag président de la république kii bokk na ci sa njaboot bokk na ci say conseiller bokk na ci nga xam ne bu toogee gis la muy gis dina ko wax waaye du tee dana jóg def la mu war a def moom ci kàttanam ak dooleem fi mu toll kon nag seen i wax itam jar naa bàyyi xel bokk na ci itam fi mu toll nii tudd nga ko léegi soxna Mariama si mu sëñ Babacar nga ni kon dana mel ni combat Modou Lo ak Balla Gaye ñu am ay kon combat yu ñu dëgg mooy Sa Thiès euh, ndogalu Sa Thiès ak Reug Reug bokk ci ki nga xam ne mooy Siteu ak euh, Papa Sow bokk yi tamit ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye mi nga tudd léegi ak ki nga xamante ni mooy xale Pikine bi di di di di di Boy Niang lan nga ñu mën a wax ci ñetti combat yooyu noonu ak tey jii lan moo ci mën a musal askanu Sénégal ba ba loola am ci jàmm ak salaam te mu bañ a benn lor-lor. tax la yëg nga ni mbëri dama leen yërëm yërëm seeni yaay kon soo toogee naan ay diw day daan ndeysaan stress nga yaay ja bu yàgg. <laughs> yàlla na ñëpp am ndam ndax lépp Sénégal la taala man dama ragal nit ku am fit te ñeme yàlla <laughs> nga toog ni diw day daan te tegoo ko fenn pour lan yaay ja du nelaw doom ja du nelaw jabar ja du nelaw mm-hmm. taala bés bu ñu sa yeggee dinaa lax kii daan bu neexee yàlla ndegam neex na yàlla ci barki sëñ Babacar mm-hmm. Mm-hmm. fi ñu toll boo ko waxee stressé nga rey nga nit bu yàgg te yëgoo ko <laughs> ah man de kon yéen a bokk déggandoo loolu wax dëgg yàlla te loolu moom ñun moom bëggu ñoo rey kenn yàlla seetloo taay sëriñ sipp lu doy ñëpp a dem vaar. balaa bëgg a jeexale ma vaar googu noonu. oh ba pare bu dañoo ñàkk jom ku ci dem vaar boobu ñaari fan ngay toog laxasu tuuti rek defaruwaat daal di ñëw jàkkaarloog askanu senegal nit ñee war a yeew nañu muus ani kunkante yow xoolal demal ba ci kanam ñu ñëw ci leneen. wallaay ndeysaan sëriñ sëpp wàcc ñëw ci internet bi di koy sëmbale mhm. pour lan dama rus nañ wuti xam-xam te ñaa mhm. te xam ne fii ku ku bañ dem vaar rek <laughs> cappal mais est-ce que tey jii jotul ni sénégalais yi ñoo war a muus wala ñu yeewu ñoom ci seen bopp ba xam fi mu toll nii xam ñu ràññee ki ñu war a ki ñu war a dem wala ki ñu war a xool wala ki mat tey ji li mu doon ci dogalu suñu borom bi. yow xam nga ci dara chaque jour ñu kalaame nag sëriñ diw yónnee naa ko 500000 mala 200000 keroog la bëgg a jël. Hmm. kon xam nga ni loolu doy na waar. Hmm. nit ñee war a muus comme ni nga koy waxee nañu yeewu. Hmm. nañu yeewu te yow il est temps nit ñi xam bu baax ka ñuy sékkal ka ñuy wax. ak kañ jox seen xaalis ci kàttan suñu borom. macha allah mhm. am na solo loolu soxna Mariama Sy mu Sëriñ Babacar moom la ñu àndal ci biir waxtaan wi nga xamante ne moom lañ seq ak moom fas yéene ko jagleel tam mbooleem ñi nga xamante ne ñooy internet yu yu yi xam ne ñooy seetaan télé bi nga xamante ne mooy Equivox TV di télé bi xew ci jamono ci biir jotaay bi nga xamante ne mooy xam sa démb mbégte lañ ci am saa su ne mais soxna Mariama ma gis tey ay bagage yu mel ne arrivage bu bees dafa ñëw wala da nga génnee arrivage bu bees ndax gis naa fi ay butéelu Evian yoo xam ne xaw ma lu mu doon waaye ci kaw Evian itam gis naa ay xeeti pot yoo xamante ni dëgg-dëgg benn bu ci ne xaw ma ci ci lu mu war a dox laa bëgg nga wax ma ko ñu door a jàll ci li nga xam ne mooy kii ya ah, sant yàlla di julli si Seydina Mohamed ndax ne naa ñëpp feebar mhm. te bu ñëpp feebar da xool li leen di wéral mais doo xool luy dolli seen euh, feebar mhm. bii day dox ci wàllu kàttan góor gu tëlee góor gu maanaam góor goo xamante ne maanaam batterie am fonctionné tul mbiram doxatul. Mhm. ci loolu lay doxee. waaw góor gu néew kàttan ñëwal seet si soxna Mariama lu yomb. Mhm. lañ koy jaayee taala. kër ga neex rek nga daal di dégg jàmm. <laughs> xam nga xam nga loolu fi mu ne moom dafa dem ba sëriñ si moom. dafa mel ni dañoo dañoo jël dañoo jël maanaam néew kàttan wala faiblesse sexuelle. Mhm. def ko mu doon buzz boo xam ne ci àdduna kenn ku ne di ci créer sa yëfu bopp teg ko di ñi ci créer produit yi nga nit ñi dañ koy lekk ka yoo xamante ni ëllëg moo mën boobu tam amul effet secondaire bu mu war a euh, causé doomu aadama bi. amul effet secondaire euh, dinjeer petit cola base yooyu lañ koy defaree maanaam loo xam ne c'est naturel. Mhm. waa base bi yëpp naturel la taala te dafa am solo ndax looy jox nit itam. Mhm. muy dugg ci biiram na doon loo xamante lu efficace loo xam ne day def gis. mais nga jox nit ki loo xam ne da koy lor loolu baaxul ñun mhm. doxuñu ci loolu li yëpp na gis produit naturel te fii lañ ko defaree. ci dëkk bi ay gàncax. yoo xam ne fii lañ koy bayee. ko defaree. macha allah mu doon lu am solo ñu gis tam fi ne gannaaw bi wàllu ngóor googu jàll tam ñu gis nga yoraat yeneen ñaar yoo xamante ni tam bëgg naa xam tam moom ci lu mu jëm ndax gannaaw tey dañoo ñëw pour génne seet li fi ne pour jagleel ko askanu Sénégal ndax nag mbokk askanu Sénégal rawatina internet yi dañu wax dëgg yàlla sonn nañu jaaxle nañu feebar nañu xamatuñu fu ñu war a dem Mm, dëgg la dëgg la ñooyee dëkk bee toj bi taala ci li muy dox maanaam ci ku am hémorroïde ballonnement de ventre mm. ci yooyu lay dox arthrose da ciy dox waaw yooyoo tax biy jóg waaw mm-hmm. yooyoo ko tax a jóg macha allah mm-hmm. Mm-hmm. te moom moom moom fi ne ni ko ni ko góor di jëlee noonu la ko jigéen di jëlee itam. non non bokkul góor ak jigéen bokkuñu ni ñu koy jëlee. dafa am dose a jël ku ci nekk dafa am dose bu mu war a jël waa bii moom jigéen joo xamante wut nga doom fu ne. Hmm. ndax fi ñu toll am na jigéen ñoo xam ne planification familiale baa ngi toj dëkk bi ki nga xamante ne sëy na lu yàgg mënul am doom hmm. ki nga xam ne dem na fu ne wut doom te mënoo ko am boo ñëwee ay seex ngay am hmm. maa nga triplé ko ay seex ñaar ngay am <laughs> yaa wax lii soxna Mariama. <laughs> ay seex kon nag macha allah. ñaata turandoo nga amagum. kan man bari na yii bari na yow yaa ci des yow tuddee nga ma te dëgg may tuddee waat yaa ci des macha allah. <laughs> ñu dikk léegi ci li nga xam ne mooy ndoxum yi nga xam ne moom la ñuy gis nii ndox mi bëggoon nañ xam ndoxu Evian bi ndoxum lu mu doon. waa ndox bi eau bénite ndox moo xam ne pour wàllu faj ci barke Seydina xamante rek mhm. dañ ciy faj taala ndax ndox mi day moom lépp lay faj mhm. day faj cancer day faj diabète moom xam nga mënul wér mais da koy calmer mhm. mais day wér ndax boom la euh, day faj li muy faj bari na day faj cancer day faj euh, estomac day faj tension feebar yi nga xamante yu sew sewaan ak actrose da koy faj ku am actrose boo ñëwee ñetti biteel nga ci jël mooy traitement bi taala eau bénite ndoxu ñaan la lépp lay faj lu mu fekk ci yaramu nit cholestérol da koy dindi. Mhm. bët yu lëndëm da koy dindi cataracte da koy faj. ñam ku jël benn bi bala mu jeex nga commencé bi changement incha allah. Mhm. mais dafa mel ni mu toll nii dafa ni lii moom su ñu importé la ndax moom daanaka. waaw dafa am ñu ma ciy liggéeyal taala dafa am ñu ma ciy liggéeyal wax dëgg fa neex yàlla ndax buñ ne doolee jël ndox ndax lii dañ ko castré. waaw ah, loolu ma jaaxal. waaw ndox mi dañ ko castré. mu ngi mhm. yaa koy daajal sa dañ ko castré doonu loo xamante ne dañ ko créé fii jógewul sax fii mhm. kon ku ci bëgg xam lu leer rek seeti mhm. soxna Mariama indi wax la lépp lu ci nekk waaw te bind nañ ci lépp itam te def nañ ci numéro téléphone bi étiquette bi taala kon loolu am na solo kon ku ci bëgg am rek ñëwal seet si soxna Mariama pharmacie Front de Terre macha allah yàlla mhm. tubarkal la kon mbokk internet yi yéen a ko déggandoo noonu tamit waaw tey falaa moom laa bëgg ñu jeexalee ko door a ñëw ci message du jour bi ndax dama gis daanaka benn paquet bu vert gis pot bu ne ci wetam ak yeneen i yëf ca wet ga daf maa xaw a sori waaye xam naa ni daal benn bu ci ne moom it nga jël ko wax ñu ci lu ci lu mu war a dox ndax tee moom bu ñu ko defee waxee defe naa ataaya tax ñuy wax tee waa taala lii ataaya la warga c'est naturel mhm. bii a jóg a sonn Euh, looloo ko tax a jóg seebage à naturel. Mhm. yooyu soxna Mariama da koy jaay. bii nag collagène la bii ñëpp ko xam. bii moom da lay revenir loo fekkal say 30 ans yóbbu la say quinze ans bala say 18 ans. déedéet waaw te boo doxatee doo sonn te lépp lu mu fekk sa yaram da koy dégager constipation. Mhm. lekk ñam du gaaw a rees. Mhm. estomac. ak gastric yëpp da mhm. koy faj bii nii da koy faj dégg bi waaw vitamine boobu daal vitamine moom ans lay maye day ibbi say fes. boo ah, ko loolu pour xeetu bëgg a kii ñi bëgg a soppi lii moom xeetu massage la taala day yëngu ci wàllu massage maanaam koo xam ne dafa liggéey ba sonn rek. Mhm. nga daal di koy dàmpee rek bu xëyee sangoo ndox xorom lépp lu nekkoon ci yaram ci wàllu coono xanaa xamoo taala. Mhm. nit da war a vider sa yaram comme ni nga xam ne oto da koy dawal. dem ba mu yàgg mu vider nit dafa war a vider. sa yaram nga oyof vie de sa yaram da nga war a maase woo pare am yoo xam ne da nga koy naan mu defar sa yaram mhm. dundalaat sa yaram daal di dundalaat sa poor maanaam entretien bi xam nga nit ñi amuñu yooyu duñ ko wane ci internet bi mhm. ndax dofuñu te dofaale wuñu ay rab <laughs> la ñu àndal non dofuñu te dofaale ndax yooyu boo ko wanee fi boo tëddee doo nelaw mais ko nekk rab kay fi ne nag Mariama dof la waaw taala man nag loolu daf may métti xam nga ndax lan man damay gis sëriñ su bari ragal responsabilité nag tax na ngay dof dof lu man moom wax dëgg bokkuma ci loolu moom je suis intellectuel kay loolu du ma du ma nekk fi nangu nekk dof taala <laughs> man daal Mariama man damaa jàpp ni ku yori rab dof nga. daf dafa am nag dof bu silwisé ak dof bu bu silwisé wul rek. du ñu ay dof ay jaamu yàlla lañ comme médecin yi ni ñuy faje hmm. ñun tam ñun sëriñ si noonu la ñuy faje médecin bu jaaxle ci yéen lañ ñëw. médecin day faj nit mu dee. sëriñ yi day faj nit du gis loolu rek la loolu rek a ñu wute la nag waaye ñoom dañuy faj ñun dañuy faj. Hmm. dañuy faj. waaw tax nee naa ku te waaw wax nga dëgg nag gis naa internet fan yi ay dof yu bare ngi ci. Ah, ah, mhm, gis naa ci ay dof gis internet ko wax de. Mhm, gis naa ci ay dof toog rek danga responsable naan ay damay def naa nga damay def naa ndax ku naan damay faj li te mënoo ko faj dof nga. dof nga moom doo ko nax doo ko nax déwén dëgg la mhm. dëgg la nit ñi dañoo ba dajee ci mbedd mi yaay nëbbatu dootoo ko defat <laughs> dootoo ko defat léegi fi ma bëgg ñu jeexalee fa mooy sëriñ si nga xamante ni dóor màtto yi ci réew mi askan wépp li ñuy jooy mooy sëriñ bi de coordonné naa ak moom jokkoon naa ak moom waxtaan naa ak moom ba yónnee naa ko sama xaalis waaye keroog ba ma ko ko yónnee ba tey jii su ma ko woowee téléphone du ko jot wala keneen a may wuyu. taal nit ñee ko bëgg nit ñee ko bëgg. ndax ne naa nit ki bu defee ku bu defalee nit defalaat nit defe naa yow boo demee di nga xam fu fu am dara ak fu amul dara neex na mm-hmm. xam ndax nee naa sëriñ boo xamante ne dafa nekk ci internet ratatat suba ba ngoon kooku dafa am sa jot balay ñaanal amul sa jot loo ko jox da koy dem boîte de nuit tëdd ci xale yi fan yaa ngi dégg ñaari sëriñ di xuloo ndax lan ay boîte de nuit ay càgga ñooñu référence nañu ñooñu dina leen xool ba nawloo leen ma ne nawloo ma leen ku leen nawloo it na dem ca ñoom ndax ña leen di jox seen xaalis ñoo ko def xaalis da nga koy liggéey taala boo ko bëggee kenn du fekk fi di wax di jafal sa bopp promotion mm-hmm. boo xam ne mun la jëmale fenn nga bëgg a sonal nit ñi kon nag <laughs> ñoom la rek mm-hmm. jërëjëf soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar xanaa rek ñu laaj la kàdd gu mujj gi ci jotaay bi lan lay doon ak message bi nga xam ne tey jii buñ la ne woon nga lancé ko nga yónnee ko tey askanu Sénégal ndax soppe yi am di jàmm yi xarit yi dëkkandoo yi mbokk yi ak mboolem ñi nga xamante ni ñi ngi lay seetaan fii nii à travers Equivox TV ci émission bi nga xamante ni mooy xam sa démb ñaataala nañu sant yàlla di julli si Seydina Mohamed nee naa fi ñu toogoon ren ba déwén ba tey ña nga fa toog te ku ñëw fekk ñu foofu ba tey kon li ñuy mm-hmm. def ragal baa ngi sàcc bi du ne maa ngi kon nag ñu ngi sant yàlla di sant itam ñi nga xam dañoo wóolu mm-hmm. ñi nga xam dañoo doylu ginnaaw yàlla ak yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa salaam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ndax nee naa nga am benn nit moo ma gënal am fukki nit ndax benn nit boobu moo indi keneen su gisee mhm. keneen kooku mooy indi keneen te loolu rek moom moo ci nekk xeetu sant yàlla leneen li nga xam ne maa ngi koy dénk askanu Sénégal mooy ñun nañ doolee muñ dëkk bi metti na mhm. dëkk bi jaxasoonu boo duggee ci rapide yi mal nga xëy fajar di dem sport mal nga yor sa kurus di mhm. jigéen ñi ngay taseel góor ñi ay xale yu ndaw dañoo daw daw ba sonn te loolu noonu defe naa président de la république message boo xamante ne nit ñi mënuñu ko lancé la mais nit ñi sonn nañ dëkk bi metti na te nag na gestu askan bi gestu yit ñu ko yaakaar ndax yaakaar dafa foor yaakaar a taxoon nit ñi fal ko kon nay bàyyi ñooñu xel mm-hmm. ñuy sant ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di sant it waa Equivox. Mm-hmm. Equivox Vox ñu ngi mm-hmm. leen di sant ñu ngi leen di gërëm la. waaw dëgg du mm-hmm. dëgg du neex. télé ci sa loxo fii rek la am. waaw poñe ko téye moom nii ah courant coupé. ñu continuer di émission yombul kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla na defal jàmm. yàlla dooli seen xéewal. <laughs> ñu sa patron nu mu tudd. waaw El Hadj ñu ngi lay nuyu ñu ngi màggal ci barke Seydina Mohamed Talla ñu ngi lay sant di gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp naan leen ba benn yoon ak équipe technique bi ci cadrage bi ci montage montage bi ci réalisation bi sant ñëpp gërëm ñëpp jox leen dig daje incha allah rabbi beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.